صلاة الله ثم السلام ñun nag njabooti chef du village am na ñoo bàyyi ko ni commande seen taalu village jiitu ko ñu ànd ak seen xarit Bala Xaaji ñu doon chef du bu baax ci jubóo daal yi nga xam ne mu ngi koy def saa su nekk ci pegg bi waaw lépp loo xam ne ne pay bi taar la rek mu ngi koy xëcc indi ko ci pay bi indi ko ci tay bi ak fépp koo xam ne ne bàyyi am na fa tànk wala am na fa loxo kon dëgg dëgg ñu koy doxee ñu koy ziara ñu koy ñaanal yàlla bu fan ñu koy ñaanal yàlla wér te ñaan yàlla léeg-léeg sëmb yoo nga xam ne sëmb na ko. amiin amiin te lépp ñeel pay bi yàlla ko yàlla matal. amiin yàlla musal ko ci cat musal ko ci bopp musal ko ci wala gàllankoor yi. tey ne tey ñëw ne nekk ci gannaaw pour liggéey ko ci liggéey bi nga xam ne yàgg na ko wala foofu kese te kenn fekk si mu ñëw nag sas ñu lii pour ñu jàppalante ak moom ci loolu pour dimbale ñu rek la pour jàppale ñu rek damay góor fi ànd ak àll yàlla yàlla motul jërëjëf merci jërëjëf Massour suñ tànk ci Taïba seen mooy ñëw ci set sital bi ci ndigalal Cheikh Abdou Barham ndax keroog ba mu dajee Abdourahman gàmm bi da ko waxoon ne ko dugalal sa loxo ci set sital bi moo tax démb ci guddi dix heures lañ ñëw fanaan fii xëy nekk ci set sital bi pour juddu baay bi wasalaam. macha pare ñu jël ñeenti mbedd yi wër kët ba kët bàyyi ñas bi ñeenti mbedd yooyu pare ñu jël mbedd bu mag bi jëm ca armeel ya su paree nag ca sorti ba la ñuy dem su paree ñu wàcc. waaw euh, képp koo xam ne dégg nga ko war ngay ñëw ndax juddu bàyyi nit ñaa ngi doxee Nigeria ñëw fii at bala gis nañ ko waree mbaam Nigeria ba fii ñun ñu dëkk bàyyi ci benn région wala benn département war nañu def it te ñëw fii xam ne boo doon dox sax doo sonn. lépp lu gën. nanga ma may nanga ma tànn la ci gën xir li yan saabal fudula xir li min kulli cheyin xayraw soo ko tànnee ba mu ne ma kulli na nga nekk ñeel ma man bàyyi kon bàyyi ñaanoon na lool waxaat na ne ci Tayba ci laay yooree ndàmmi wërsëg waxaat na ci Tayba ak li ko wër yëpp yow yàlla lan yàlla na ma ci dàqal suruur yàlla na ma ci dàqal xay da nga dey yàlla nag ma ci dàqal ñàkk yàlla nag ma ci dàqal mbooleem yi nga xam ne ay xuraafaat yoo xam ne dañ koy sipp yoo xam ne bëgguñ ko ci dëkk beeg yooyu yëpp bàyyi waxoon na ne yàlla yàlla na nga ko dàq lu wër Taïba ci Taïba ak mboolem lu wër Taïba moo benn mbokku taaliba day wax ne jàppal Taïba muy sa xol sa dàq ci surur dàq ci xay dàq ci nangam dàq ci nangam ak nangam loo xam ne du la jëriñ soo ko defee rek yàlla da lay daal di bi jël loo xam ne njëriñ lay doon barke lay doon njub lay doon àndoog taalibe yi àndoo bu rafet lay doon ala kulli xaal daal nañ ñëw ak yéene bu rafet ñëw tamit ak yaru ñëw tamit ak teggin ñu xam ne Cheikh Ibrahima waxoon ne fal adab al adab yàlla zalika fa innahu albaabu li kulli saalik na am teggin na nga am teggin teggin ñeel na mbooleem koo xam ne aji sóobu la te bu nekk rek ñu ngi pour lu gën a dëggal suñu taalibe gën a yeesal suñu taalibe gën a am mbëggeel te bàyyi wax na ne laa bi yanaalu ma indana ilaa bi sidqi wa muhabba ne ci ñu kenn du ko jot lu may ci dëggu ak mbëggeel nañ ñëw ak dëggu mbëggeel suñ ko defee rek incha allah dinañ jëriñu kon ala kulli di jaare mbokki taalibe yi nga xam ne moom lañu àndal fii yëpp waaye xaasatan di jagleel jaare Cheikh Abdou Cheikh Abdourahmane Cheikh Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla may ko wér jotale ko mboolem càkkuteef yi di jaay moom laa naa bàyyi radiyallahu anhu jërëjëf Baye Niass waaw yooyu yi ñu génne woon rek aywa na dem ci kaw na dem ci kaw na dem ci kaw na dem ci kaw na dem ci kaw na dem ci kaw na dem ci kaw. waaw ñoo bu baax a baax. macha allah. def na ngir lépp rek ngir bégal. macha allah noo tudd yow. ngir bàyyi rek. la yàlla la